mbokki internet yi nga xam ne yéenay seetaan eh, chaîne bi di NGTV ñu ngi leen di nuyu wax ngeen dal ak jàmm abonné leen sunu chaîne activé cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal ngeen mën ko jot jaa ngeen jëf mbokk yi ñi nga xamante ni ñoo di waa mafia kàcc kàcc ñoom daal danoo façon yéene dajale lu toll ci cent cinquante million eh, de francs CFA ngir jëndal seen eh, leader di Ousmane Sonko véhicule blindé boo xam ni dina ko man dina ci man di dugg buy dem li nga xamante ni moo di ay manifestation wala ay ndaje yi nga xam ni waa Pastef dañ koy organiser moom Ousmane Sonko li waral ñu jël initiative boobu nag ci njiital Atama Dia ñoom Ousmane Sonko ginnaaw bu mu doon dem eh, benn meeting fële ca Mbacké fa amoon ay jàppante yu amoon daal ban toj eh, eh, vitrine ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko oto boobu mu duggoon ci loolu nag ci lañ jëlee initiative ñoom nii dañ koy jëndal véhicule blindé boo xam ne daal Euh, day toll ci cent cinquante millions comme ni leen ko waxee ñu amoon nag pàcc bu njëkk bi euh, jubal yoon li nga xamante ni moo di ñaareelu xaaj bi nag ba mat nag ñu fas yéene amal li nga xamante moo di ñetteelu pàcc bi ngir jëndal Ousmane Sonko véhicule blindé bu bees tàq boo xam ne ci lay doxi ji ay soxlaam euh, comme ni ko waxee nag ñoom ñi ngi ko jaarale ci application bi nga xamante ni moo di Copper Express ci njiital ki nga xamante ni moo di Atoumane euh, jaañ bi nga xam ni moom moo jiite mafia kàcc kàcc ngir ñu jëndal Ousmane Sonko véhicule boo xam ne daal euh, dina ci mën a dem sans ay problème niki noonu sax waa Pastef tey jii wan na amal benn manifestation fële ca Tivaouane ginnaaw bi nga xam ne préfet ba autoriser na ko ñoom waa Pastef nar nañu koo amal foofu muy manifestation boo xam ne nag ñoom e woo nañ ca ñëpp woo nañ ca képp kuy sénégalais ngir ñu mën a ñëw naqarlu li nga xamante ni CICIS mi ngi koy doxee fii ci Sénégal ñoom waa Pastef ñoo organiser loolu parce que waa préfet bu Tivaouane nag daal dina leen ni nangul euh, décision boobu ñu bëggoon mooy manifestation boo xam dañ koy amal si jàmm ak salaam